ne lii xew ci élection présidentielle deux mille vingt quatre bii élection boo xam ne ndamal peuple sénégalais la wone ndax askan Sénégal nii dafa xeex pour que élection am dem ci jàmm wote ji tànn ak président ci jàmm ñu sant yàlla nag ci bu ñu mayee ñu doon ñoo xamante ne moom ñoom lañ tànn.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 loolu di wane que Sénégal benn xeetu askan la boo xamante ne askan bu màgg la askan bu xam lu mu bëgg la askanu bañkat la waaye tamit askan la boo xam ne jàmm rek a ko soxal di rafetlu tamit taxawaayu président de la république Macky ndax ci fan yii ñu weesu taxawaayam moo waral ñu am élection bi mel bi ñu am.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 ak yoonal ak jub ak jubal ak jubanti waaye tamit ak jox cër ku mat askanu Sénégal yëpp ndax gannaaw ñoom lii mënul woon am tànneef bi seeni tànneef la jëmukaay bi ñoom ñoo koy wane te bu soobee rek nañ ci ànd ak doomu Sénégal yëpp loolu nag mënta am tànk taxawuñu ci xeex guerre ba pare jël lépp loo xamante ne mën nañ ko ci suñu kattan.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 foo nekk li ñëpp bokk nga mën ci jot taxawaay boobu dinañ ko am ànd senegal Sénégalais yépp yi nga xamante ne ñu ngi biir réew wala ñu ngi bitim réew waaye am nañoo yéene seen xam-xam ak seen alal ak seen jot ak seen doole ñu dugal ko ci li doxal Sénégal loolu nag ku ko wax wax ne am na yu jàmp yu jàmp yoo xamante ne war nañ ko war nañ ko jël en charge a war nañ ko jël liggéey ko ci lu gaaw a gaaw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 ñi nekk ci beneen boor bi tamit di ku jegi ay doomu Sénégal ñoo ca nekk ku ci nekk jàpp nañ ci yàqin ne liy defar Sénégal moo la tax nga taxaw loolu nag dinañ ci ñëpp waxtaan ceeg ñëpp te dalal ñëpp ne lii nga xamante ne ñu ngi koy doxal naa ci ànd ak ñëpp ñu bokk ci ku jegi ñu bokk ci parti politique ñu bokkul ak parti politique bi pour ñu waxtaanee li nga xamante ne ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk te nañu ko séddoo muy Sénégal. di jaajëfal nag ñi ñu àndaloon ci élection muy ñi yore woon les leaders ñu ko waxee sànq parti politique yëpp ñu bokk ci coalition Diomaye président di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun yore suñu kaaraange muy sécurité bi di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun. yore communication bi wala ñu yore organisation bi bu ñu def campagne bu mucc ayib bu fekk fu ñu dem fekk fa ay Sénégal yi ñu teew suñu waxtu bu ne ñu di leen jaajëfal ñoom ñëpp fu ñu egg fu ñu eggul te di réserver nag une mention particulière à un homme je pense que j'ai pas besoin de le ci xalam bu ñor ak ci xalaatam yu rafet yoo xam ne moo tax ñu taxaw coalition Diomaye président moo tax projet bi am candidat ba Sénégal yi amoon yéene jëmmal projet boobu ba xool promesse yi ci nekk yaakaar bu ma jur naka lañ ko fas yéene doxalee bu nekkoon kenn koo xamante ne rek day wax ne man kese bu dul man doon keneen ci gannaaw kon du mën a am waaye yemul ci loolu. yemul ci loolu parce que dafa takk ndigam takk ay dalam sol yéeram yendalul fanaanalul guddeeg bëccëg suba ngoon soit ñu ànd soit mu jël axe ma jël beneen axe muy battre campagne matin au soir six heures du matin ñu koy gis muy battre campagne deux heures du matin ci bëccëgu ndar kam ci suba donc jaar na fu ne def na lu ne te lu ci nit ñi gis rek ci lu fës xam ne lu ñu gis mu def ko ci lu fësul moo ëpp solo ci la waral résultat bi kon mënuñu ko bañ a beral loxo te bu ngeen seetloo saa yu may jëf prise de parole dama koy mujjee pour que nit ñi doon bu ñu dee tàggoo nit ñi nekk lu ñu mujjee retenir parce que bo bëgg naa bu nit ñi retenir dara ko loolu bokk loo xamante ne ci discours bi nu mu gudd gudd wala nu mu gàtt gàtt loolu du bokk ci lu ñu fàtte kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan may ko wér gu yaram ba yéene ki nga xamante ne ak ñu ci àndal yépp ci liggéey bi am na ko ci ñu mën ko doxal ci Sénégal bu Sénégal Sénégal bu naataange Sénégal bu ñu may cër bàyyi ko xel gën ko fonk ci àdduna ak euh, ñu teg ko teg ko tamit ci loxo yoo xamante ne ay loxo yu combat yi nga xamante ne daan ko xeex mu doon combat yoo xamante ne combat suñu génération la mais du doon combat prochaine génération bi parce qu'il faut avancer résolument vers le projet progrès économique social et culturel